وأرضاهم عنا ورضي الله عن خليفة شيخ على جبل الناس نفعنا ونفعنا الله ببركته آمين يا همة الشيخ فاحضر لنا فئة المحضر والتقلنا بنسل انتاتنا بسفري مبكي غنا بني مسلو سيتاني تنبلي تري على ميخي والمدى في ابتعدنا يرم جل ركت على آخر بولي خاجي تنتيني على يالا ميخي خمني موين بندي برم بندي xéewal ak mucc yàlla nekk ci ki nga xam ne yàlla da koy yónni pour mu mottali jikko yu rafet muy suñ sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéewal googu yàlla dotteeku ci ay ñoom ak saxaabaam ak mbooleem gaa ñu baax ñi yàlla yàlla gërëm suñ sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ak i xalifaam yëpp te yàlla gërëm loolu ñu gërëm leen ñu gërëm ñu loolu yàlla ko yàlla defoon suñu xalifa Cheikh Tidiane bi nga xam ne mooy suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass yàlla fayal ñu ko yiw te yàlla ta jëriñ ñu si barkeem ñu ñëw te ci téere bi nga xam ne moom moo ko bindoon muy mu qulub wa mutali'ul quyub muy téere boo xam ne dafa ñëw pour la laabal xol yi ndax laab ni yaram yi laabee setee noonu la xol yi wala laab set doona mën a jëm ci yàlla door a mën a àgg ci yàlla door a mën a taataan leeri yàlla yi door a mën a xam li nga xam ne mooy xëy bu ndax xëy bu ñaar la xëy bu boo xam ne eh, nit mën na koo xam ak boo xam ne bu bi nga xam ne nit mën na koo xam nag xol bu set moo ci mën a dem waaye xol bu xoomaat dafay mel ni seetu bu të bu tëx bu liim soo ci xoolee doo gis dara waaye buñ ko fompee ba mu set boo xoolee gis xol tamit noonu la mel li koy fomp nag mooy dindi si moom jikko yu bon yi nga xam ne moom la téere bi eh, di ñu wax ay bon bonam bañ mën ko wattandiku ak ñu ngi koy saafara eh, ñu ngi mujjoon a jàng ci eh, tere guddal mébét waaye nit mënta ñàkk mébét ndax nit bu mébétul rek bon dundam bi day taxaw waaye guddal mébét nag waxoon nañ ko si ci suñu dégg mooy nit ki bañ a yéexe dara jëmee ko ëllëg ndax loolu boo boo guddee mébét rek day tax ngay ngay ngay tardel nit te lool boo ko defee dafay gàllankoor bu bëri ci sa dund bi ak sa dund bi ñu la wër waaye loo loo bugg a def rek da ko daal di commencé bu ci nekk di déng déngi loolu mooy waaye naa naa ko bàyyi ba suba naa ko bàyyi ba weer wi dee naa ko bàyyi ba déwén loolu day tax say jëf di di yéex wala di tardé tey ñu ñëw ci fas bi nga xam ne mu ko tuddee faslu fi maa suul xulqi hmm, faslu bi nga xam ne dafa nekk ci tere jikko ju ñaaw te bu la waxee maanaam suul xulqi bu la waxee jikko ju ñaaw rek boo xam bon lim la digal mooy nga ta nga nga nga melokaanu jikko ju rafet su ko defee ñu jàng texte bi buñ paree ndax si bayti la ko def tënk ko ndax ñu mën koo mokkal waaye nag ñu delluwaat ci Ihyaa Ulumuddin nga xam ne dana ko gën a yaatal ba ngeen gën koo dégg mu ne wa in aradta ujrata siyaami min xayri ma sawmin wala qiyaami wa nayli ma aradta fi daarayni wa xasinil xulqa duuna mayli kama xaka nabiyuna almuxtaaru xutbul wara faddalahu almuxtaaru mu ne wa in aradta na namm nga yow taalibe ji yow aji soowu ji yoonu yàlla yow jullit bi fekkee ne dangaa namm mooy dangaa bëgg ujurata siyaami payak koor ñu fay la payak ku xoor min xëy maa sow min ci lu dul xoor wala xiyam du tàgge na naafila su fekkee da ngaa bëgg ñu fay la payak ku xoor kuy naafila te du xooroo naafila ko nga ne ko ak lan mu ne wanay li ma arata ak nga xam la nga nam la nga bëgg fi daaree ni ci ñaari kër yi te mooy àddina ak alaaxira te mooy texe nga xam li nga bëgg si ñaari kër yi mooy àddina ak alaaxira te mooy texe mu ne fa xasin na nga rafetal alxul ko jikko duna may ci dund fen su fekkee ne bu nga am li ma wax nii rafetal sa jikko rek danga am tiyaaboy ku xoor da am tiyaaboy ku naafil da nga am tiyaab da am li nga bëgg ci àddina ak àllaaxira kama hakka comme ni mu nettalee nabiyu naa suñu yonent bi almuxtaar kadi kuñ tànn xutbul wara kay xutbu mbindee na ko almuxtaar kuñ bi nettalee te nga xam ne moom la yàlla tànn ci mboo tànn tànneefu tànneef yi ndax yonent yi dañuy wax ne mën nañu al fukk alfukka xadin mooy ñaar fukki junne ak ñeenti yonent waaw yàlla tànn si jeysun mooy ñetti téeméer fukk ak yoo xam ne dañ leen a yónni jox leen ay mission ñetti téeméer ak fukk ñett yooyu alxuraan wax si ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom yooyu juróom nekk ci ulul asmi ulul asmi yooyu ñu tànn si kenn muy suñ sama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon moom mooy tànn mooy ki nga xam ne mooy tànn te mooy eh, yón eh, yàlla mag na bon ñetti bayt yi waxal nañu si li nga xam ne moo ñuy jëriñ moo ñuy may tiyaabo yu bari xam koor moom yàlla ne koor maa koy fay sama bopp fay jaamu yàlla yëpp boo si def yàlla da koy fi benn fukk ba fa ko soob waaye koor moom Euh, amul fay ndax muñ gaa tax naafila guddi li si nekk wax nañ ko ku bugg am saraf dangay naafila guddi doylu li si loxoy nit ñi te loolu li ko maye mooy rafet jikko te euh, rafet jikko bi ci njëkk mooy muñ moo tax euh, ku bugg am texaat dina ak àllaaxira na rafet jikko waaye ñaaw jikko amul benn njëriñ su ko defee bu ñu demee ci xasaar yi dinañu leeralal euh, dëgg-dëgg rafet jikko ak def mu tuddee ba ne ko bayaanu xaqiqatu xusnul xalqi wa suwul xalqi lan mooy rafet jikko ak ñaaw jikko ba nga xam ne war nga koo xam ba yow boo nekkee dangaa amoon jikko ju ñaaw nga bakko boo nekkoon ci jikko ne rafet nga gën goor góor góor ndax jikko dafa am solo ci dundu nit ki waye dafa am solo ci dundu xeet motax way ko arab bo innamal umumul akhlaqu ma baqiya wa innahum sahabat akhlaquhum zahabu mune xéer yi ay jikko mo len fi ba jikko yi rafet nit ku nekk tamit jikko yi rafet xéer yi jikko yi su fekkene jikko yi rafet dem ni rek xéer wa dafay dem dafay raf su ngeen jangé tarikh yëpp ñi halaku ñi raf ñëpp xéer yi raf yëpp bañ démé ba seen jikko ñaaw rek lañ daanu xatta lislaam jullit ñi dañoo demoon ba doot àddina yëpp waaye bañ demee seen jikko yu ñaaw ñu topp bànneex àddina topp ay caaxaan rek si daanu mun a xamal ne nit ñi wax nañ ci digg lan mooy xaqiqatu rafet jikko mooy ak la nga xam ne moom la ak li nga xam ne moom la ñu gaaral ci dëgg-dëgg deug deug rafet jikko ak liñ garal ci meññ na ndax ñaaw jikko bo xamé rafet jikko rek da nga xam ak la nga xam mom moom ci ay njëriñ ay meññat moy ay njëriñ ku nek wax na ci meññeenam la nga xam ne la xalaat mo rot ci xelam ak la tew ci xolam manam borom xam-xam yu bari ku ne wax na nga gisee lan moy meññu rafet jikko waaye waxuñ nag xaddu maanaam limité wuñ ko ne lii rek la xaqiqa bi nga xam ne moo làmbu njëriñu rafet di ko yëpp kenn mënu koo matale kenn naka noonu wax ju rafet wax ju rafet tamit kenn mënu ko wala ñu ne Assane wax na ne rafet jikko mooy tàllal sa xar-xaram doo nekk ne këñ ka ñaaral rek fu ñu la gis rek nga ne nga mel ni ku mer sa mel ni koo koo rek sa xol bi sa karkaam mel ni dañ koo taal kooku ku ñaaw jikko la ndax lu nekk ci xol bi rek mooy rafetewu ci xar-xaram bi waaye ki nga xam ne foo gis mu ngi ree mu ngay am boo ko bu la jugee ak kër la ak ak mu ngi am métit sax doo ko xam kooku soo ko gisee ko am rafet jikko la bon koo gis mu ñëkk ñëkkaari la këñ ñi kañaaral kooku ku ñaaw jikko la ak joxe tab li nga xam nga siy joxe waaw koo xam ne dafa tabe kooku ci min ci rafet jikko la bon ku nay ñaaw jikko la ak fekk lor koo xam ne nangutu lor kenn du lor kenn wax ak jëflante bu koy def mu ngi moytoo lor nit ñi kooku ku rafet jikko la waaye ki nga xam ne day lor nit ñi ci jëfam ci waxam kooku ku ñaaw jikko la moo tax saaga saagakat ku ñaaw jikko rek ay saaga waaw ndax yàlla def ne wasbir alaa maa yaquluuna koo dégg muy saaga rek ñu wax la dara rek nga taj tëj dagg kooku ku ñaaw jikko la borom jikko ju rafet du saaga mukk soo ko saaga woon sax du la du fayeeku nee na wax na arganaar boo boo saaga du du saaga day wax ak yow it rek moom lan la bañ naa wax lu ñaaw ci làmmiñam bi moo tax na day wax ak yow moom li nga ko wax rek mu ne la ak yow it alwaasitiyu Asan moom loolu la wax mu ne rafet jikko mooy sa xarkaram bi tàlli ngay joxe tabe te fekk lor bon safaan bi ci Asan mooy ku njëkk koo xam ne sa xarkaram fu ñu ko gis mu mel ni da dangaa mer doo joxe dangaa nay te da ngay lor nit ñi ci sa loxoy ak sa làmmiñ kooku dafa ñaaw jikko kon loolu ngeen xam ko moytu ko alwaasitu yi moom lu wax mu ne rafet jikko mooy bum xuloo bum moom ngir tara xam yàlla gi nga xam ne moom la xam yàlla moo ne ki nga rafet jikko du xuloo duñ xuloog moom du xuloo mooy lan moom du du du njëkkee xuloo te ku ñëw bugg a xuloo moom du du la si fekk si comme li ñu waxoon boo xooree bu nit ñëwee di saaga ak yooyu ne ko man damaa xoor moo tax boo rafetee jikko ñu lay fay fay ku ku am tiyaa booy ku xoor ndax ah, bu la nit provoqué dina saaga yow doo ko saaga da nga koy wax ne man eh, da nga koy da mat moo tax biñ nekkee daaree Paamour bi amoon benn suñu magu daara mu ne dafa daara ji mu njëkkoon nekk benn waay bu ñaaw jikkoo fa nekkoon xuloo saagaay ku mu wax rek di tasta ji mu defee faak benn waay bu rafet jikko mu xuloog moom waa ji ne pat muy wax wax wax waa ji ne pat mu saaga ko waa ji proge ba mu yàgg rek muy kenn di jooy yow da ngaa foog ne yaa ma gën yaa yow da ngaa foog ne yaa ma gën yow da nga gënoo fi kenn waaw léegi waa ji moom dóor na ko duma na ko ci ci ci te laalu ko waxul benn baat moo tax euh, mooy ku rafet di ko doo du xoloo du duñ ko yóbbu ci xoloo loolu la waa wax karamaan yi mu ne mooy fekk lor ak xenu mauna mooy dund mauna mooy li ñuy dépense rek koo xam ne day fekk lool te xenu xenu dépense maanaam nangoo xenu yor nit ñi hmm. kooku rafet jikko la ndax nit ñi xam yow nga xam li nga am bokk kook nit ñi ku rafetu jikko mënu ko ku ñaaw jikko du du defal kenn dara day wax ne man kañ du ah man du ma la alxuraan waxoon an nut'imu man nasha'u wala an yut'amu boole ko jox mu ne ah man danaa jox le ak yàlla yàlla man maa maa ko ñàkkuloo man ñàkkuloo moom ba koy jox li ba koy xamee man waruma ko xam ku xamee koo gis mu ñu xamee jikk nit ñi rek dafa rafet jikko waaye ku rafet jikko doo mën a xamee kenn kan maa la wax ñeneen ñi si borom euh, nit yàlla ñu ne rafet jikko mooy nga nekk ci nit ñi di leen ku leen jege waaye seen diggante nga nekk ku fi tumuranke loolu mooy lan da ngay nit ñi nekk seen miin leen ñu miin la waaye seen diggante nag nga tumuranke ci mooy doo dox si diggante ñi sa yoon si diggante ñi si nekk bon doo rambaaj bon rambaaj nekkum ko rafet jikko ku rafet ku ñaaw jikko toujours mooy dox si diggante nit ñi toujours foo ko fekk dafay moom dafay sori nit di di dox di di nekk jege si seen diggante dem si ki wax yi dem si kële wax kële bon rambaaj lay doon ku rafet jikko doo nekk rambaaj waaye ku ñaa rambaaj ku ñaaw jikko koy def wasitu waxaat benn yoon mu ne rafet jikko mooy nga gërëm loo mbindeef yi ci lu ci tartar ci yomb yomb ak tartar maanaam nga fexe ba kenn du la mere loolu nag jafe na waaye nga leen di gërëm su nit ki ñëwoon sax di la laaj te amoo da koy wax wax ju rafet loolu mooy rafet jikko waaye su dee ku ñaaw jikko mooy da ngay merloo nit ñi ci yomb ak yomb-yomb ñëwee laaj li nga wax waaye dugal fële yow da nga may reetaan dama laa yow da nga foo gis laa ko nga ñëpp loolu ku ñaaw jikko koy def yàlla te nag su dee nag ci dara nag nga nga ñëw wax ko mu ne dafa yow yow danga may ñaawal yow yow danga may ñaawal dama laa tane ba ngay ñëw di ma laaj Abu Ousmane mu ne rafet jikko mooy nga gërëm yàlla li gërëm yàlla nag mooy lu yàlla indi rek nga nangu rida moo gën a ëpp doole muñ sabru moom da lay dañ nga métti lu ko mu ngi lay métti waaye doo ko jàmbat rida nag daf la du métti dangay tax naa yàlla si yàlla booyee ko rek man jaamam yàlla laa yàlla teg na ma am loolu amu sax lu ma si wax lu ma si eh, eh, ruspel saxlu tastari ci rafet ji wax na ne bi ci gën a suufe mooy ixtimaal mooy supporté mooy day encaissé eh, lor nit ñi mooy bi ci gën a suufe ak bay faye fayante mu kaafaa defal defal nit dara pour ma def delloo la ko mu ne ki nga xam ne dafa rafet jikko du defal kenn dara pour séntu sa lu ñu ko delloo ku ñaaw jikko nag moom mooy safaan bi lu mu la defal mu ngi seetlu ne boo ko deful mu la moonte maa la defal démb nangam de donte maa la defal nangam ak di yërëm kuy tooñ ci rafet jikko dafa yërëm kuy tooñ ndax dafa xam ne si tooñ ba tax na boo ko tooñee moom du fay du la du la def dara daf lay yërëm jéggal la waaye ki nga xam ne dafa ñaaw jikko ku ko tooñ mu fayu waaye ki rafet jikko day yërëm ki tooñ ba du fayew te def koy jéggalul sax bu wéetee day yàlla yàlla na ngi jéggal jiw waaye ki ki ñaaw jikko moom daf koy ñaan yàlla daf koy ñëweeti maanaam dafay xam ne lii ki yàllaa ko nattu rek moo tax muy tooñ waaye eh, lii lii sax eh, xañ na bugg ko ki ñaaw jikko nag ku ko tooñ daf lay dafay faye ko pare boole ko ñaar yàlla saaga la def nii nga xam ne soo ko gisee Sénégal saaga ante ay mukallaf yu saaga ñooñ dañoo ñaaw jikko mu ne ak du tuumal de yàlla ci wërsëg tuumal yàlla ci wërsëg ah, lu tax kii kii di xam lii man xaw ma lii loolu da ngaa tuumal yàlla ku rafet jikko dafa li ñu waxoon gërëm gërëm mooy indi fii waaye ki ñaaw jikko dafay tuumal yàlla ci wërsëg ki rafet jikko day dëgër day hóolu yàlla day dëgërlu ci yàlla dal ci matal li nga xam ne moom la ko yàlla warlul mu koy mu siy mu koy joxe te du ko moy ci mbooleem mbir yi ci li nekk digganteem ak moom yàlla ak digganteem nit ñi li ko yàlla sant daf koy def du ko moy du ko yàlla jox mu doy ko kooku mooy rafet jikko waaye ki rafetu ko moom toujours dafay xarab yàlla man kañ yàlla dafa maa bañ man kañ man kañ xaw lu ma def yàlla ah, waaw ah, mel ni mel ni yàlla moom dafay def dafay def lanteeg yow ba ba ba boo ko defee lu bon mu fay mu def la déedéet ñun ay jaamam lañu rek ku nekk dafay seet la la ko neex ci yow rek mu def ko Alioune Seydina Aliun radiyallahu anhu waxna ne mu ne rafet jiko nek na si ñetti ji ñetti melokan teet lu haram ku rafet jiko da ngay teet lu haram bon nak ku dul teet lu haram rek ku ñaaw jiko ak sakku lu dagan ak yaatal sa njabot mu ne ñetti yi ku ko melokan rek am nga jiko ju rafet waye ñetti safan bu ku ko def rek am nga subul xol am na ñoo xam ne seen njaboot dara luñ la ñaan nga ne def xaw waaw sa njaboot da nga leen a war a yaatal ci sa kem kattan xam-xam su la yàlla joxee lu bari nga njaatal leen su la yàlla joxee leen nga xem sa defal leen waaye doo wax ne man xaw ma rek xaw ma xaw ma xaw ma wax na ne mooy bu mu jeexital ci yow deseeg nit mbindeef yi gannaaw boo xamee nag yër nga li nga xam ne moo nekk ci yàlla soo xamal ne sa yàlla nit ñi dala dese kooku bu du la métti waaye gis nga diw maa ngi maa ne romb nuyu ah, di diw mu ne doo ko yëg sax ku la nuyoo ku la nuyuwut ak ku la defaral ku la doo ko ndax yow gis nga la yàlla di nekk si moom ngay jàkkaarloo waaye ku ñaaw jikko mooy ku bëri yeddeel koo gis mu ñaaw jikko rek dafay bëgg lu muy yedd dafay mel ni moom mooy victime bi toujours dafay gis ne moom victime la nit ñi eh, ñi moom lañ dañ koo tooñ soo ko am doom mu ko sax mu ne gis nga li tax nuyoo ma waaw kii def maa xeeb su fekkee ne ñëw nga nga ne ko doo ah, mën nga ñëw toog nii si bi kii def maa def maa loolu yëpp si ñaaw jikko la Abu Saydu Xaraas mu ne mooy bul xam benn hitte lu dul yàlla mooy rafet jikko mooy du xam benn hitti lu dul yàlla te mooy li yàlla bëgg lim santaane boo hittoo lenn lu dul yàlla bon ku hittewoo leneen lu dul yàlla rek rafetoo jikko waaye ku hittoo yàlla yow doo gis sax ah, ñaawteefu mbindee ba leen di mere wala nga leen di ah, xaram misaal yu bëy moom la ci loolu mooy li nga xam ne mooy rafet jikko ak ñaaw jikko bon ko ku rafet jikko du am muñ dafay yombam mer dafay xat dafay fayweku dafay fayantoo loolu yëpp ci ñaaw jikko la bokk ci liñ déggee ci li nga xam ne moo tax nag ku rafet jikko tiyaabo yi yëpp yàlla dina ko def ndax texe àddina àllaaxira boo rafetee jikko da ngay da am texe ndax nit ñëpp dañ lay bëgg nga bëgg ñëpp sa xol bi benn mbañeel du fi nekk mel ni saxaaba ba nga xam ne yónni tuloon na nit ak aljana ngi na des fan muy dugg ci jàkka ji Abdoulaye am na war a dem dem ak moom fanaan moom ñetti fan gisul lu may def li muy def sax moom moo ëpp li muy def moom foogoon ne dafa am ay jaamu yàlla yu muy def yu gën fii ba muy dem mu ne ko am ah, man kat jotewu ma sama baay dara damaa bëggoon a xam li ngay def rek ndax ñetti fan yónni tu sakku sar mu ne buntu bee nit ak aljana fi dugg te yow la yow la ñetti fan yëpp yow yaa fi duggee ma bëggoon a xam li ngay def ah ma ma ma roy ma topp loola si ndax man itam ma mën a bokk ci ñooñu xal jàmm mu ne ko ah, li nga gis rek de man daal guddi gi daal damay nelaw bu fajar jotee daal mu ñëw dee dinaa jóg jàpp dem julli ji su ma xëyee dem liggéey ñëw lii nga gis rek ba mu demee bay waaye génn nag mun tawaat na ko kaay waaye nag lenn laa la seetal sama xol bii amu si benn mbañu si benn mi def bañu ma si kenn loolu de moom xam naa ko mu ne ko waaw kañ loolu nga amee li nga am moo tax jikko ji rafet ku ko am da ngay texe loolu sara bi bëgg na mën nañu taxaw foofu tey bon nañu jéem a rafetal suñu jikko yi waaw jikko ñu ne al xulq wal xalq ñaari abaara la yoo xam ne ñu koy jëfandikoo benn yoon dañu xam ne fulaan xasanul xulqi wal xalqi diw ko rafet jikko la ak bind mooy ko rafet biir la ak biti mooy biti bi dafa rafet biiram mu rafet te bu ñu waxee biir rafet mooy xol xol bi dafa sell nit ku ñaaw jikko dafa yomb xam dafa yomb mer dafa yomb gedd dafa yomb saaga dafay fayeeku yooyu yëpp ci jikko yi ñaaw yi la bokk kon yàlla nañu dimbali bañ mën a teet suñu teet jikko yu ñaaw yi doy na rek xam jikko dafa yónni ko seen aqrabukum minni majlisan yawmal ak ahsanukum axlaaqan ki ma gën a jege yawmal qiyaam ah, ci yéen mooy ki gën a rafet jikko bon buñ buggee bon safaan ba si mooy ki ma gën a sori mooy ki gën a ñaaw jikko te ku ñaaw jikko genn ñaaw jikko yi sax boo saagantu doo dem aljana eh, yàlla nañu yàlla may dégg ak topp duñ si wax mu taseeg sawaab yàlla nañu ko yàlla nangu mu si njuumte yàlla nañu ko yàlla jéggal درجة ينتبه yàlla yàlla fayal maam El Hadj Abdoulaye Niass yàlla xasal buñ xol yi ba mu set wecc ñi nga xam ne leere xëy bi danañ si mën a jóoru mën a taxe àddina ak àllaaxira allahumma salli ala sayyidina